bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah guddik tey gi mooy ñetteelu guddi ci koor naafile gi tey doon juróom benn rakka niki démb muy ñetti sëlmal kon rakka bu ne fatiha benn yoon inna ansalnaahu ak xul yaa ayyuhal kaafiruuna lu ci ne ñanti yoon juróom benn rakka la rakka bu ne fatiha benn yoon inna ansalnaahu ak xul yaayuhal kaafiruuna du ci ne ñeenti yoon